الصالحين بالزمام لك لدى رب الورى كل مرام لك بي يا سيدي ci muy jàmbaar joo xam ni jumaa ji min na jëfa sëñ Babacar si Alsaan daan na jëf lu rëy uh-huh. waaye nag lii waneti na jëfati na ko la ilaha illallah ndax bari na masaalik ñoo xam ni uh-huh. daan nañ sax si uh-huh. waaye ñooñu xëy na dafa am lu mu mi nga xam ni dafa jël ak bëggam ak cofeelam jox ko yonent bi sallallahu bëgg lool Cheikh Ahmadou Bamba nag nga xam ni moom Cheikh Alassane ba duggee ci ay waxtaanam ba mu xuus ci béyite Serigne Touba yi ak xissa yi nga xam ni man ma ànd ak moom ba ci mu Mamadou Mountakha mu nettali benn xissa ci assiru mahal abraari xiina assiru ah keroog Cheikh Madul Muntaxa daa muñ ca jësit ja ca na mu ko nettalee loola taxawaayam la pas-pasam la ci Serigne Touba waaye nag bi ñuy ñëw daf ni bu ngeen demee da ngeen fa fekk Serigne Mamou ak mu Moustapha nga xam ni ñoom ñaar Cheikh Alassane seen diggante xam nañu ko waaye bi ñuy ñëw itam danoo ànd ak Cheikh Malick mi nga xam ni moog Cheikh Alassane bokk ndey bay waaye ak Bunaama waaye tam ànd ak Xasan Diallo ànd ak Ousmane ak ñu ñu ànd ñu ñëw lii mu tàmbali nag fu ne Cheikh Alassane ak dugal teraanga nii mu ko indee masaali ci la ko dugalee ci këru diine yi ci la ko joxee wólëre yi ci la ko joxee ñëpp ndax moom alalam fekkiwu waaye sëñ Babacar yow it bi ñu la fi fekkee ñu xam sa taxawaay ci masaali xam sa digganteeg alaaji Mbàkke yu lii nag xaru imaam la waay waay waay bu ñu demee nag ba waxtu wa la ca war a xew dana ca xew waaye lii def na ko addi unité sallallahu alayhi wa sallam suñu kilifa la da suñu jëwriñ day moo waroon taxaw nangu lii waaye ñun la fi bàyyi ñu koy nangul mhm. di ko ci rendre compte waa Cheikh léegi rek laa waxak moom ne ko moom ma tey ñibbi ndax yemal na fi Mame Mor Mbaye ak Moustapha ñu jiitu di xaar ñi ñu war a indi. ñi mm. Malick Magam ak ñi mu war a àndal ak ñoom Modou Mboub ñu jébale teraangaam. teraanga ji rek duñ ñu guléet. Ah, at mu jot nii ma ko nangoo tey rek laa koy nangoo as at mu ne. muy bàyyi ko ca moom moo koy jébale ci barab bi. kon mbàkk yu xam na teraanga ji miin na ko. waaw ah, dëgg loolu nag ñu ngi ciy sant yàlla baax di ko ci sant moom ñu jëf. te xam ne kenn taxu koo jëkkurul Cheikhul Khadim Khadimu mm-hmm. Sall mi mu gëm lu dul moom mm-hmm. sëriñ bi mu gëm lu dul moom te amul lu dul moom nag tax mu jëf lii kon tur Alaaji Mbàkke yi fay ñu ngi koy sant di ko gërëm ko ñaan yàlla di ko ñaan yàlla baax mu gën koo man di ko ñaanal baax lay bëggam ak yéeneem yàlla defal ko na mu ko bëggee ndax waajakat ba mu ñaanal Cheikhul Khadim daf ko naan Mbàkke yàlla yàlla defal sa bëgg sëñ Tuubaa di ko amiin ak a neex ku may ñaan ñaanale ma nii ndax ban na mu waaye di ñaanal te du sama bëgg kon Cheikh Alassane lay bëggam yàlla na ko yàlla defal la ca des ak ci kaddu ki ko moom muy bu mbàkk yu fay mhm. incha allahu taala bu altine fii ci jullikaay bi la mu ko war a wax nag wax bu soobee yàlla jërëjëf ñu ngi sant baax te Malick ñu ngi sant yàlla baax a baax a baax ñuul ñu ko baax bëgg nañu lool kontaan nañu trop trop trop trop macha allah jërëjëf jërëjëf سلم نفسه الذي هداني لأنه البارس من هداني يعصمني البارس من الأقدار في دار دنيا وتلك الدار مع النبي الملتقى المنير زلم قلبي زلم قلبي زلم قلبي زلم قلبي وقبى بنور من زن غير الله يغني أو يده

Mbakke Noreyni ba Seydina Ousmane ba noppi dem di taalibeem waaye sëriñ bi itam wóolu ko waaw diggante nag Cheikh Alassane ak Cheikh Modou karaa moom lay wax du tey démb woon waaw ci teraanga joo xam ni Cheikh Modou Kara defal na ko bu yàggul yónnee ko Cheikh Alassane nga xam ni sëñ Xadim mi moo ko indi nga xam ni parfon yooyu moom moom gis ko moom jafe na waaw waaye lii nga xam ni nag moom la Cheikh Alassane def moom lay defal ñëpp léegi léegi la ko yót imaamu Massalikul Jinaan waaw nga xam ni fépp la ko def oto bi day day day tawaaf rek waaw waaye bii moom bii moom bii couleur moom képp waaw waaw noir et blanc bii général rek waaw Cheikh Modou Kara rek waaw ñu mu ngi koy sant nag di ko gërëm jërëjëfati jërëjëfati jërëjëf jërëjëf يا سيدي يا نور كما أخوان يسر ليلوتنا كما أخواه بسر لا إله إلا الله على نبي المصطفى على نبي المصطفى على نبي المصطفى يا الله سل بلا إله إلا الله صلاة مؤمن بسلام الله بسر لا إله إلا